yàlla na leen inniya alamu maa laa taalamuun xam naa lu ma leen xamalul waaw xam naa man yàlla lu ma leen xamalul ndax boobu ñu ngi sukkandiku ci alquwa algadabaniya alquwa alshahawaniya xam nga nit bu reggee ba bajantu ba mu yóbbu ko ci mbewte ba fekk ku ko mat bàyyi mu bëgg a dëgg ci kawam di ko ni delloosil sa xel ku daj darajaam topp dooleem ba gis ni kii danaa ko wan ni ma toll ba mu àttana tuur deret di nga ko ni delloo sil sa xel nekk boobu yàllaa ngi nëbb alquwa al aqliya xel moomu nag afala taaqiluun afala tatafakkaruun afala tadakkaruun ñi yàlla di waxal ñépp mooy nen ulul albaab moo tax yàlla waxul ak nit xel la waxal moo tax bu xel feebaree ibaadaat yi wàcc ko moo tax kamaliyatul abdi fi itiraafi al ubudiya dañu nit du mat waaye sag a ngi ci nangu ne yàllaa la moom te yaa ngi ci loxoom moo tax bi yàlla di wax ci kawnu bi ci suuratil falaq qul audu bi rabbil falaq yàlla dafa cof kawnu bi waaye bi mu indee nit ki nga xam ni kawnu bi yépp mi ngi ko ndëxëñ ci doomu aadama bi mu agsee ci nit daf ko ñaat ba mu jeex jël ko ci rububiyatu jël ko ci mulukiyatu jël ko ci uluhiyatu qul audu bi rabbi nnaas min sharri alwaswaasi alxannaas wéroon na qul audu bi maliki nnaas min sharri alwaswaasi alxannaas wéroon na qul audu bi ilahi nnaas min sharri lu tax yàlla ne qul audu bi ñaat nit ki ba mu jeex ci ñetti maraaxil yooyu yépp moo tax yan bi tegu ci bopp ñépp di ko séen ba borom di jeng diisul ndax lu ko dab wàññi ko mi ngi fi waaye li tegu ci xel te boo tëddee mu teralaa nelaw nga yëg ni diis nga bu ca nit mënatul sentir responsabilité mënatu ko jële ci leneen kon nit ki ci jëmmi boppam war na laaj ndax dañu ma fi indi wala ndax maa fi indi sama bopp dañu ma fi indi man wala ndax maa fi indi sama bopp bu dee yaa fi indi sa bopp am nga sañ-sañu def lu la neex bu dee dañu la fi indi nag laajal ki la fi indi kana ak lan la bëgg ci yow xam nga réer yàlla mi ngi yegg ci toog naan yàlla allahumma waaw parce que ñaan yàlla majaas la ñaan yàlla majaas la xam nga lan mooy xaqiiqa yàlla defal li nga bëgg ci man yàlla defal li nga bëgg ci man loolooy xaqiqa la waaj a ñaanaloon Cheikh Alxaaji Abdul Aziz ne ko maam dama la ziyaar si tey waxtaan ak moom ba war a yeeweeku góor gi ne ko defal ma ñaan mu ne ko yàlla bu la defal yàlla bu yàlla defal li nga bëgg si abdu na bërët yàlla bu la yàlla defal li nga bëgg boo bëggee nag ma ñaanal la yàlla sëñ Abdou ne ko ñaanal ma yàlla mu ne ko yàlla na la yàlla defal li mu bëgg ci yow xam nga ku jënd sa xar ci daral bi indi ko ci kër gi am ci moom sañ-sañ indi ko ci kër gi am ci moom sañ-sañ war na war na bala ngay xalaat li nga bëgg ci xar mi nga am question yoo laaj sa bopp ndax li nga indi ci kër gi dafa am bésu juddu nga am ko mu am bésu dee nga am ko mu juddoo ci biir nga juddoo ci biir muy xiif di lekk ngay xiif di lekk ngay mar di naan muy mar di naan ngay sonn di noppalu muy sonn di noppalu buñ la dóoree la ngay yëg ci metti boo ko dóoree moom lay yëg ci metti war nga xalaat kii ci yan loxo la jóge man mi amit sañ-sañ ci yan loxo laa jóge bu ngeen dajee ci sunu boroom war nga xam ni ni nga fi indee xar mi yàlla may la ci lii noonu nga war a bàyyee xel dañ la fi indi am ci yow it sañ-sañ kon tënku ci logique tënku ci logique dootul jaadu ci yow ndax waxkat yi dañu wax ni àdduna yàggul àdduna yàgg na fuñ la nettalil sa dund juróom-ñaari maam yoo fekkewul fañ ko nettalee yàgg na ñu ni dund yàggul dund yàgg na li fi nit di dund moo yàggul li fi nit di dund moo yàggul nit ñi nag bëgg a chronométrer ci espace bi ak ci seen temps ñoom ak li ñu tënk ci seen logique yàlla na leen yooyu yépp dàq naa ko tabaaraka alladi bi yadihi l mulk le pouvoir absolu man rek maa ko détenir te ci ñaar laa koy jëfandikoo ci sama digganteeg jaam ñi noppi gi ma noppi ak nëbbu gi ma nopp te kulla yawmin huwa fi sha'n maa ngi ni pat nekk ci li ma ne te léeg-léeg ma yëg ni roof naa ci nit lu mu mën a waxee ba ñépp dégg ko mu fàtte maa delloo njukkal bëgg a wax ba ñépp dégg ko te man maa ngi ne pat léeg-léeg eh, li eh, eh, ma feeñal ci nit mu bëgg ñépp xam li ci moom te man mi ko def ci moom maa ngi nëbb sama bopp te lu coowam bari ak lu mu bëgg bëgg fés li ko war dara matu ci te yàlla li ma war bés bu ne maa ngi ci tabaaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla nee na du lu may yàkkamti ndax muñu ma dama muñandiku yàlla muñul dafa muñandiku alladi xalaqal mawta yàlla nee na maa sàkk li la war a jël si te waxu la fan la lay fekk wal xayaata maa la booleeg li nga war a àndal te xaaru la diggante boobu nag laaju ma la loo fa mën def fa la ma la sant li yabluwakumu ayyukumu axsanu amala yàlla ne na podium bi am na pièce bu ñu fiy joué yonent bi sallallahu alayhi mooy acteur waaye lu acteur mën mën mën mën bu mu leen jaaxal ki ko réalisé te feeñul ci kaw podium bi moo ko ëpp doole. kon inna diina wala ñu tuddee ko alqaanuun al ilaahi alladi nafadahu llahu fi baqiyati alkawn yucabbiru alquran anhu bilmiizaan qaala allahu taala fi muxkami tanziili laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat wa anzalna maahum alkitaaba walmiizaana li yaquuma annaasu bilqist inna alinxiraaf an miizaani illahi qaanuunu aladl al ilahi huwa aynu alfasaad mu dellu ci sëriñ bi lim doon laaj yàlla dafa teg élément de mesure bu nit war a retrouver boppam te sa ruuxul idraak bu dundatul sa existence mook mort vivant ñoo yam xam nga léeg-léeg ñu jox nit mikro ci gàmm mu gàmm ci faatuk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba bi ñoo sotti ndox ci bàmmeel bi ki koy waxtaane dese sago faatug yonent yàlla muhammad ba mu feebaree nga waxtaan ko ba ba mu génnee àdduna ba bi ko malaayika yi di jullee ak saxaaba yi ba bañ ko robee nga nekk ci tànt di daagu waxtaane ko ba mu jeex desee sa saboo an sa ruuxul idrak xam nga kenn amul doom waaye bu doom juddoo ne jàkk papa naan ko bàyyi yëg yëg a tax yëg yëg a tax bu xoolee ndeyam naan ko yaay yëg yëg a tax waaye amul lu mën a confirmer ni doomama waaw waaw diw sama jabar lu leen tënk yëg-yëg la diw dama ko bëgg yëg-yëg la amul dara lu ko mën a confirmer mënuloo ko démontrer ci dara wax ju bari rek te wax ji yépp la ngay yëg a ko waral waaw yëg-yëg boobu bu nit ki demee ba mënatu ko am ci digganteem ak boroomam. tàllalee sa tànk sa tànk ngi ci kaw yàlla. la waral nit di yëg nag bu demee ba ñu wuutu woon yàlla loolu dara ja lañu gën a yëg ak juddu. ñettee woon diine dañoo am fachal looloo indi échec bi yëgatuñu yàlla juddu lañu gën a yëg ak daraja ak gestu sa gannaaw yëg sa mbooloo te mu tasawifuuna yi dañu wax ni boo bëggee xam ku ñàkk teggin ci digganteem ak boroomam mooy kuy sàkku taalibe yàlla nee na qul a'udhu bi rabbi naas maa moom nit ñi li yàlla moom di alalam nga ciy wut loo yilif te mënoo bokk ci ñi ñu yàlla yilif waaw suñu papa alxaaji ahmad Cissé nee na suñu papa cheikh ahmad tidiane si atallahu baqaahu nee na ku utul ku utul nekk député looy doye junniy nit ku ñetti nit topp nga alko sëriñ bi seetal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaytu xay xay xaytu intaha almajlisu kaana julusuhu xam nga kooku yëg yàllaa yëg yàllaa ko ko yóbbee sunu kilifa gu baax gi ma yebal fii di sëriñ Babacar Abdoul Aziz nee na bés baayam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz daf ko yónni ca Jurbel boole ko ko Abdou Sakhir Gaye Abdou Sakhir Gaye ma nga dëkk ca gannaaw Dagana waalo waalo la bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mu nekkoon chauffeur sëriñ bi nee na bi ma doxee yónnent bi ba yegsi mu doon yónnent bu jàmp nee na ma dugg ci saal bi ñëw jéggi ñaari nit ne ko papa asalaamualeykum dem nañu ba ñëw mun ko sëriñ Babacar siggil yónnent bi doy na taxawal nële ba yàlla jéggal ma ñaari nit ñi nga jéggi benn bi suma bàyyi sëriñ Babacar Mansour moo ma ko nettali nee na bàyyam alxaaji Mansour daf ko yónni mu yegg ci ñëw taxaw ci buntu saal bi ne asalaamualeykum Cheikh alxaaji Mansour fi aadatihi lu nit ñi mos a bari bari bëtam du siggi ci téere mu siggi ne ko mbay agsi si nga góor gi ne ko waaw agsi naa mu kóot ne li mu doon def ba diir mu siggiwaat ne ko mbay agsi si nga mu ne ko waaw agsi si naa mu bàyyi ba saal bi vide ñépp dem sëñ Babacar Mansour nee na ma agsi nuyu ko mu ne ko toogal mu toog mu ne ko yi ma la doon laaj yépp dara taxul woon ma di la ko laaj dama doon seet ba xam ndax di nga jéggi nit ñi walla déet Cheikh Al mi ñoo wax ni ñaan na yàlla njaboot bi ko yàlla dénk yàlla bu ko kenn xàmmee ak njaboot goo xam ni seeni boroom ñoo ko jël wóolu ko ci seen diggante ak seen boroom parce que ñemewuma utiliser turu taalibe parce que mosu ko prononcer. yàlla bu ko kenn xàmmee ak taalibeem Cheikh Al Hadj Malick waxewu ko noonu ñi am seen njaboot doyloo ca yàlla te jaarale ko ci sama loxo man yàlla bu leen kenn xàmmee ak njaboot gi ma yàlla dénk man yàlla may na ko ko waaye fan la ko ko may ak fan la ko Cheikh Al Hadj idlaalu sayidina siddiqu arrafahum iyaahu xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu ànd ak maysura di liggéeyal xadijatu maysura di xale xadijatu pourtant màndarga ya doon feeñ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba naaj wa tàngee niir wi di ko tiim mu bëgg a tuur ndox sukk ci garab garab gi wàcc suturaal ko pourtant ba mu àndeek Abu Bakrin di génn Màkka dëgmal Madina màndarga yooyu mënoon naa feeñ ci seen ànd lu tax feeñu ca lu tax feeñu ca keroog ba mu àndeek baayam di defi commerce ca Cham yahud ba toll ca balkonam séen ko màndarga yamu xàmmee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa lu tax feeñul keroog ba muy dëgmal madina ànd ak sayidina abubakarin ànd ak nit di jóg di daanu ba teraanga ñëw yonent bi ak abubakarin nekk ci biir garabu tàndarma yi waa madina xam ni ñaar a ngi ñëw waaye ñii de xamaguñ ci kan la ñu dem ba génn tàndarma yi naaj wu tàng jër ana niir wa ana alaamaat yi Aboubacar yëg ni nit ñi àndatuñu ak sago waaye maa ngi ànd ak sama waaye tax xamuñu ñun ñaar kan la ci mu tekki kaalaam muur ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñii doog a xam ni kii la Cheikh Hadji Malick ne kon njaboot gi ma yàlla dénk ak li ñu ma wóolu dénk ma ko yàlla bu leen kenn xàmmee bu ñu àndee. foofu la ko Cheikh Seydil Hadj malik ñaane moo tax mimi Cheikh Al Hadj Malick bii nit ñi di gàmmoo bu ñu defee ni ci xissa la yam juum nañu ndax ñeent yi daaneel nitu yàlla yépp te buñ ko wootee ba mu ñëw te fekkul nga yor poids bi koy dëkku la nga xëcc mën na la faagaagal moo tax suma bàyyi nee na bañuñu ku ko yanu waaye xaaral ba ñu yan la ko waaye xaaral ba ñu yan la ko xam nga rabbi lii li lii neex na waaye am na lu ko ëpp doole alam nashrah laka rekk rabbi shrah li sadri neex na te wér na waaye la nashrah laka sadraka ku ëpp doole moo tax senegal tëgg nañ fi làmb joo xam ne ñi ñu fi miin tey ñi ñu fi miin tey ci biir làmb ji ñu fiy bàkku xamuñu fi woon maamu kenn moo tax ëttu yàlla bu fi sirul wilaaya te jógee ña fa des bu ñu utiwul alal dootuñu yilif ña fa ne moo waral échec bu ñu ëmb diine ëttu yàlla bu fa sirul wilaayati rocceekoo ña fa des bu ñu wutiwul alal doot ñu yilif ña fa ne ndax alalu yàlla kenn du ko marchandé looloo indi échec gu ñi ëmb diine ñi ëmb àdduna nag seen échec Cheikh Alxaaji Malik traité na ko ca xutbaam ba yàlla nee na jox naa leen xéewalu wér jox leen xéewalu xel xam nga inna alfadla bi yadillaahi alfadlu du lu yàlla di maye alfadlu du lu yàlla di maye mais mooy gafaka gi yàlla def mbiram te kum bëgg dimbale ca la lay dimbale boo ko doon wutal équivalence danga naan mooy fonds politique taqwallaahi bi fadlillaahi ndax ci muus mi la jógee nit ku maandu la ba ñépp seddeel la ko ci sa diggante ak sa boroom ci gafak ak yàlla la jógee nit ku tabe la bi fadlillaahi nit ku jub la bi fadlillaahi alfadlu gafaka la yutiihi man yasha doo ko firee yàlla moo koy jox ku ko neex yàlla moo cay dimbale ku ko neex innal fadla bi yadillaahi gafaka yuutihi man yasha yàlla moo ciy dimbale ku ko neex moo tax ku mën newu fi ku yàlla dimbalee fi ne Cheikh Al Hadj nee na li indi échec gu nitu àdduna yi dañu fàtte ni yàllaa leen fi indi kenn ku nekk tënk sa bopp ci sa logique gu bopp dama dem ba lépp da nga koy calculer xam nga un plus un égale deux kooku logique nangu na ko mais lan la deux di représenter ci sa àdduna foofu la problème bi nekk. nga jël deux nag nu ne nga taxwiile ko ko waaye Maodo nee na yëg naa ne wa maa qaabaltum dalika illa bil maasi lhawaalik loxo ko gàttandoo moo loxo yi ñu ko gàttandoo moo tàq moo tax xale bu loxoom setee mu mu mën a bokk ak ki mag waaye loxo ba ku koy setal looloo jaral lijjanti ndax la nga jàpp ni moom nga koy raxasee ba mu set boo yegsee ci mag ñi loolu la ñu considéré ni moo ko tilimal fa ko mag ña di ñuux nag ba mu tilim nga defe ni lépp nga ca foofu lañ ko considéré ni moo set la daloon ganu Cheikh Al Hadj Malick ci dundu Cheikh Al Hadj Mansour Al Hadj Mansour woolu benn xale ci daara ji ne ko dama bëgg lépp luñ fi yàkk nanga dem nga tegal ko mag ñi ci seen añ ci seen naan ak lépp lu ñu soxla góor gi maali wax a ne ko cheikhul xaw mi xale bi ak ni mu tilimee ak yërëm yu xotteeku yi ak ni gan yi selle ak nañu tedde doo seet beneen xaleel nu koy maali waxa yow da nga alaaj Malick ci njabootama ah. xale bi ni biti bi lëndëmee yépp noonu la biir bi fees ak leer wa maa qaabaltum dalika illa bil maasi lhawaalik atajmacuuna maa laa taakuluun wala atabnuuna maa laa taskunuun atabnuuna maa laa taskunuun Cheikh Alxaaj Mansour firi na ko ci benn wayam fi benn wayam atabnuuna maa laa taskunuun mu ne yëg naa ni jamono bii ñu toll ku fi dëkk ci baraat ci prestige nga dëkk te këru sàkket yombul ku fi dëkk ci baraat ci prestige ngay dund te këru sàkket yombul waaye yëg naa ni jamono gi ñëw boo xam ne nit dana la romb yor projet immobilier te bu tabax ba sottee bokkam yépp fanaan bi zamanu unaasin tamaalaw fi majalisihim ala itibaaci lbunayaati almudillaati atabnuuna ma la taskunuun atajmacuuna ma la taakuluun yàlla mu rey nagam nar ko woo sa nawle yépp ci dégg ci diggu pénc mi ne Chérif Ibrahim jëlal ñett ngañ demal nga ñibbi yow doo am Maodo Diop jëlal ñaar Maam Njaay jëlal benn fa xaalis ne xalaat nekk fa bëgg-bëgg fa nekk bëgg-bëgg boobu tax nga xañ yàlla cëram ci fuqaraa u yeeg masaakiin yi ba azaka sax dootoo ko génne atajmauna ma la taakuluun wa takaasartum fi l zurtumul maqaabir lii moo indi échec bu nitu àdduna yi lépp ci calcul lañ ko teg moo tax nga indi les G20 dara du sotti waaw dara du sotti moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ci ndab li nga wax ni yàlla neen na ku ko togg ba mu sotti te du ndabal yiw ma yàlla danaa ci xëpp suuf moo gis nga Cheikh li mu def priorité mooy lu yàlla nammu ci moom wa raddini bil qadaa rabbi musabbirani ala balaika wa ma yafalul alil jalil bi xalqi فذاك جميل يرتدي منيب سمام نينا وما يفعل العاد الجليل بخلقي فذاك جميل يرتدي منيب سيدنا جبال نينا ولدني sañ-sañ ba def ko nee na man Maodo rafetlu naa ko nee na lu yàlla am sañ-sañu def ko man Maodo rafetlu naa ko ndax li rafet nekkul ci man li ma bëgg Maodo yàlla def ko mi ngi ci li yàlla bëgg yàlla def ko moo tax mu ni fa daaka jamilu إفراد القضاء <laughs> لأجلب منك الرضا بالرضا waaw mu ni mu ni mu ni taraktu إلهي اعتراض القضاء لأجلب منك الرضا بالرضا ok nee na taraktu اعتراض القضاء لأجلب منك الرضا بالرضا nee na nee na nee na xeetu nattu yi ngay wàccee ci man Cheikh Alhaji Malick nee na di ko càmbar ak di seet lu ko waral ñemewuma koo xalaat xalaat lu tax ñemewuma koo xalaat dafa am lu ma ko bëgg a jëndee walla ni neex na ma ngir nga dugal ko ci la la neex mu jural ma ngërëm ëllëg la Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz waxoon Serigne Babacar Mansour. rangooñam toq ci dënnam sëñ Babacar Mansour ne ko bàyyi dafa mel ne sa bët dafa tooy mu ne ko waaw Babacar dafa am lu sama xel dem waaye maa ngi lay yëgal ni man Abdul Aziz ragal lu ma def lu bon waaw sëñ Babacar maa ngi lay seedeel ci sama diggante ak sama borom ni ragal ma def lu bon góor gi nee na ma ni teg mu ne ko xam nga lan laa ñemewul di ko xalaat di ko xalaat moo tax ma dafa tënk xel teggin dafa tënk melo yar dafa tënk cër xorma dafa tënk xel teggin dafa tënk melo yar dafa tënk cër bari na ku ni maa fekk yaroo ko danga ko bari na ku ni maa ko yar fekk yaroo ko danga ko yor yor bi moo ëpp yar bi te bu ñu werantee kani moo ko yar ak ki ñu yar bu ñu werantee ba ñu war leen a àtte ki yar xam nga lan lay njëkk laaj laaj leen ko lu mu manqué ndax duma la jox nga lekk ku lay dundal moo la yor yaru la ndax lekk kenn du ci yar nit ki la dëkkal nga am foo fanaan du yar kooku yor la waaye lu mën a xew léeg-léeg nit kilifaam gane si ko ngan ga rëy lool neex lool mu yegg ci kàddu teraanga ne ko tey jii bu rey nit daganoon ma def ko léeg mu jib ci kàddu teraanga sa kilifa dëgg nga gunge ko dellusi ci kër gi fanaane waxtaane ngan gi nga xëy bër set yàlla gane si la jël ku ko neex nga tànt woo say bokk jooy ko wan yàlla ne li nga def naqari na ma te démb sa sëriñ yaa ko ni bu rey nit daganoon ma def ko loolu dama nekk moo tax fi yàlla jaar ak yonent bi sallallahu xam nga am na benn suura quraaniya suuratu duha gis nga suratu duha du waxu biti waxu biir néeg la waaw suratu duha waxu biir néeg la waxu azal la dafa am lu ko tax xamoon nañ ni wax yu daggoon na ñëwatul yonent yàlla Muhammad dégg lu ne waaye yàlla cig mbaaxam ma ci jukki rekk benn aaya boo xam ñun ñépp li ñu jot a am ba toog fii tey ci leeru aaya boobu te lañ ko amee bi yàlla ne wadduha wallayli idaa saja ma waddaaka rabbuka wa maa qala wala al nit ñi ne alaaxira xayrun laka minal uulaa ñëw taf ko ci taf ko ci àdduna yàlla ngi fàttali yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la mu déyaaleeg moom ca biir néeg xamal ko ni man ku ma bëgg a tong faw ma bawloo ay xaj ci sa kaw waaye dama bëgg nga xam li la war a ut ak li nga war a wut yow yow sayyiduna muhammad dama bëgg nga xam sallallahu alayhi wa li nga war a ut ak li la war a wut li la war a wut mooy li la soxla bu ko gestu li nga war a wut nag mooy sama jëmm ji kon walal axiratu sa inspiration xayrun laka minal ula moo ëpp doole sa expiration sa ay nafasaat sa noy yi maraatiba yi nga ci yéegee bii génn bii dugg ko ëpp doole wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman may ki la amal man bi machiati wa bi fadli wa juudi ma roof la ca ësal ci xaybu boo xam ni loo làmb doo daj amul dara lu ma lu ma teg ci sa wet ba mu mën a dendale boppam ak yow nga ñàkk ndend ci lu mu mën a doon na ko Cheikh Sidi Ahmed Tijani Chérif layelee ca ulama ut boo demee ca Hamziya keroog ba yonent yàlla Moussa alayhi di sàkku ca yàlla nan ko rabbi arini anzuru ilayk ni ko lan taraani walakin indi xarfu istidrak sëriñ Habib suma turandoo nee na bu rëbb ndawal jafe. nga dugg ci mbànding gont ba ngoon jant di so gisoo loo daaneel nga wëlbatiku yam ci kéwal nee na diir ko ba dóor mu daanu des ci ñu ni la pëkk-pëkk nga wëlbatiku nee na kenn gënu laa ñàkk bopp moo dal Moussa ci digganteem ak boroomam Seydina Cheikh nee na ulama u tawil bi ñuy tontu bi yàlla di tontu Moussa daf ko ni laa taqrabu maalal yatiimi illa billati hiya ahsan yàlla moo considéré boppam comme almaalu alalu jàmbur la al yatiimu huwa sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa doo ko firee foofu ki ñàkk ndey wala ki ñàkk baay ki ñàkk ndend illa billati hiya ahsan lu dul lañ la jox ci nubu wa sédd la ko ci barkeem yamal ci loolu te bàyyi fi alalu jàmbur fa xud ma ataytuka fa kun min liñ la ci sedd na la doy da nga góorgóorlu alam yajidka yatiman ma créé la ci benn environnement boo xam ni làmm nga fa lu ne dajoo ma orienté la ci sama bopp taf la ci man moo tax keroog bi musaa jóge ci sunu borom di dellu si di bi Seydina Muhammad jóge ci sunu borom di dellu si li tax Moussa intercepté ko wàññi julli yaak yépp ajuwu ci wax ji fenn rek la tënku woon anta aachiqun lil miraati wa ana aachiqun lak comme man sama bët mënul tegu ci seetu bi ba ma gis sama bopp dee ko xool di ñëw ma di la xool rek anta aachiqun lil miraati wa ana aachiqun lak et boobu anta aachiqun lil miraati wa ana aachiqun lak alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka daalan fa hada yàlla lu jëkk muy joxoñ yonent yàlla muhammad ba mu xam ni leeru boppam la lii la ko yàlla di fàttali ca ëzal di ko ko déeyi kunta daalan fi tiihi wujudik fa talabtuka bi juudi wa wajadtuka bi fadli wa lutfi wa hadaytuka bi jadabaati inaayati wa nuuri hidaayati ilayya wa jacaltuka nuuran fa ahdaa bika ilayya man ashaau min cibaadi fa man ittabacaka wa talaba ridaak fa nuxrijuhum min dulumaati alwujudi albashari ila nuuri alwujudi alruxaani wa nuhdihim ila siraati almustaqim wa wajadaka daallan fa hadaa bien parlé. as-saxaa'u wa kaana asxan naasi waaw kaana moo gënoon tabe nit ñi ci jikkoo xalqan wa xuluqan aljuudu mooy tabe ci alal as-saxaa'u mooy tabe ci jikko nga yàlla ne ko fa talabtuka bi juudi ci sama tab wa wajadtuka bi fadli wa lutfi ma ne la nëkkatee ba nga xam ni yaa ngi ci ay loxo waaye ci sama ngëneel ak sama ñeewant ndax bu ma jëfandikoo sama xudra kon dootoo nekk ba nga yëg ni yaa ci loxo ma niit sama bopp man yàlla ba nga yëg ni du yow rek yaa fi ne li nga doon làmb am na lu fi ne wa hadaytuka bi jadabaati inaayati wa nuuri hidaayati ilayya ba nga yegsee ba yëg ni am nga kilifa wa jaaltuka nuuran fa ahdaa bika nag ilayya man ashaau ma def la repère min ibaadi fa man ittabaaka wa talaba ridaaka ku la teg bët jox la loxo d'accord ak yow moom laa doon wax sànq ni aljahlu billaahi aynul imaan ku làmb sa bopp ba mu wóor la ni dajuloo yàlla nee na ci lay doog a taxaw sa ngëm juddu na aljahlu billaahi aynul kufr yàlla nee na ni ma présenté sama bopp ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci seen mustawa ku ma ci réere yaa ngi taxaw ci joggare yéeféer loolu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane moo ko indi ca rimaax fa man ittabaaka wa talaba ridaaka fa nuxrijuhum min dulumaati lwujudi albashari yàlla neen danaa faxas ban bi ban bi nga xam ni waxoon naa leen anifan al insaanu min jihati tiini bi ixtilaafi al alwaani jëme ko fan ila nuuri alwujudi alruuxaani moo tax bari na ku gane mag toog di waxtaan ak moom ànd ak sa njaboot nga ñëw mag mi traité la comme xaleel fekk jamono bi muy wax ak yow bëtam a ngi ci sa ruux yëg na ni nàmpagul leer moo tax bopp bu fees ak njàng ruux bu mànd ci leer a ko bu fees njàng ruux bu mànd ci leer a ko gën qad labisna hayaakila nuuri lamma faaraqatna alhayaakilu albashariya mu ni qad labisna hayaakila nuuri hayaakila nuuri lamma faaraqatna alhayaakilu albashariya sëriñ bi mbubb mi faaw ñu summi ko pour daaneel nag tënk wax ji njàngum tubaab barke newu ci njàngum tubaab barke newu ci mag ñi laajoon nañ ko Cheikh Al Hadj Malick man nag yàllaa ngi may defal sutura lépp lu ngeen dégg ma nettali ko am na sanad wax naa leen sànq ni jàng ci téere yi xam-xam ci mag ñi ku xëy ci say téere bu ngoonee gontal ci mag ñi ñu wax la li xew ku xam li xew noppi Pape Alxaaji Kebe radiyallahu anhu moo jur Pape Muxtaar moom moo way tawda jalalati sabran qalbukum salima ya mujibal qawmi suudin wal bayaadini moo ko way Alhaji Mansour à l'âge de dix-huit ans sabran sabran tawdal jalalati sabran qalbukum salima ya mujibal qawmi suudin wal bayaadini mi ngi ko way à l'âge de 18 kii doomu Moodu la kii doomu Daawda Mbaay la fi seen bàyyi newoon ak sunu baay baax bii nekk ci xadara bi tey ba yàlla def lii Pape Alxaaji Kébé surtout maam Ousmane sàmb way na fi sànq rawdu rawdu nag koo dégg ñu ko tuddee ko ko ñu ko tuddee góor gi Abdara Wele mi taxawoo nag xabru maam Cheikh Seydil Hadji Malick looloo indi tuura rawdu ar looloo indi boo demee ca raw du maam Cheikh Sidi bakar nga fekk fa góor gi Ahmed si wele ak njabootam yàlla na ko yàlla yërëm moom it ndax la ko seen bàyyi taxoo woon waaye ñi tudd raw du yëpp maam Abdara wele lañ leen tuddee waaw bi mu ko woyee à l'âge de dix-huit ans ma ngi ko taalifee ca Ngalandu Diouf li may wax Baye Rawdu Sàmb moo ma ko nettali nee na mu dugal leen ci néeg maam Pape Alxaaji Kebe jël raw Rawdu Sàmb ak Pape Maodo ñaama ne leen xasida bii dama ko def ci Cheikh Alxaaji Mansour dama bëgg bu ñu yeggee Tiwaawan comme mi ngi waaj yoon mu ñu yeggee rek ngeen woy ko ci kanamam waaye dama bëgg ngeen mokkal ko bu ngeen ko mokkalee kenn ku nekk ci yéen danaa la may mbubb bay rawdu nee na mu ni Maodo koom yow dangay ngay woyee put taman damay woyee dënn da ngay bàyyi bu ma yëkkatee nga awuma bay alxaaji kebe moomu nag ba may jàngal xilaasu zahab mu tombeek nawet moo ma mos wax ne ma sa maam Cheikh Al Hadj Malick mag ñi mos nañ ko laaj njàngum tubaab loo ci xam mu ni barke amu ci jamono gi ñëw boo xam ni ña ca gën a ñaw plume dañoo taxawaalu bi mu ma ko waxee trois ans lañ ci teg. maîtrisards yi chômé njàng ku ca am maîtrise ba pare di taxawaalu war nga xam ni la nga jàng barke newu ca bii ma neexoon am léegi ku am bac waaw waaye li ci yéeme mooy pour wax leen ni ku yabu jàngi sharia te jéem a tàggataat sa bopp defaraat sa ruuxul idraak ba mu dund te jéem a fexe noo yëgee yàlla xam nga kalimatu taqwallahi dañ ko tënk ci ragal yàlla waaye maanaam xaqiqatan mooy yëg yàlla ndax sëriñ bi nga seeti mu rëdd musalla wala murabba dugal ca la mu cay dugal ne la dangay ngay bàyyi ba suuf sedd nga dem fu la kenn gisewul nga jëfandikoo fa lii ma la wax ci anam bii ak ci anam bi nga bàyyi ba suuf sedd nga fas yéene def lañu la sant war nga xam ni yow mi ñu ko sant yëgoo yàlla kala ko sant yëgul yàlla demal fu la kenn gisewul bàyyi ba suuf sedd te kiy gis ñépp laa taaxuduhu sinatun wala nawm laa taaxuduhu sinatun wala te yàlla du benn kenn la mu ni la fu la kenn gisewul ndax kenn kenn du ci tàmbalee wàññi waaye ku ni benn ni ñaar kenn du ni kenn nag teg ci leneen waaye pour dëggal waxu maam Cheikh Al Hadj boobu àdduna li fi nit di dund yàggul yàlla dénk la njaboot nga seet li nga bëgg ci sa doom te seetoo li yàlla bëgg ci lim la dénk yàlla mi la jox te mooy alxaaliqu iqra bismi rabbika alladi huwa alxaaliq alladi xalaqa al insana min alaq iqra bismi rabbika alladi huwa al baariu alladi xalaqa al insana min alaq iqra bismi rabbika alladi huwa al musawiru alladi xalaqa al insana min alaq yàlla ñetti sifaatam yii la taxawoo nit ci biiru yaayam alxaaliqu moom mi ko amal à l'état pur mu def ko un produit brut albaari u te kayo de sang boobu di ci def lim ciy def di ko yatt ba bopp taxaw di ko yatt ba loxo génn di ko yatt ba tànk génn mu génn nuru la al ndax bu lenoon génneen ci yow lu dul nit nga daw yàlla ne waaw kon li taxaw ci sa kanam loo moom la walla lu ma moom boo dee loo moom seetal loo ci bëgg nga def bu dee lu ma moom seetal li ma bëgg nga def ci nga ni damay xaar ba mu am sept ma dugal ko mu jàng ku la ne dina dund sept daf ci am ayat quraaniya yoo xamante ni yàlla wax na ko nit ki mais daf ko koy dunduloo jamee na bu ne jamono boo sujoo teg teg sa jë suuf yàlla nee na minha xalaqnaakum fi nga ko teg fi la ci laa la bind nga wëlbatiku gi toog sujootaat mun la wa fiha nuidukum ci laa lay delloo nga toog ba war a taaye nag yàlla soxla ci yow ñaar alxuduuru wal istixdaaru tënkal sa xel tënk sa xol tënk sa xalaat mel ni muus muy tëru janaax nga taxaw di ko seetaan ci concentration ba mu nekkee al istixtaaru ka annaka taraahu al istixtaaru ka annaka taraahu min xaytu yaraaka fa in lam takun taraahu min xaytu yaraaka fa innahu yaraaka min xaytu laa taraahu yàlla nee na boo mënul yëg ci dimas ci dimension boobu na nga defar sa bopp ba mu mel ni tey lañ la sang di la rob ci bàmmeel nga teew lu loolu ci sa sëlmal moo tolloog wa minha nuxrijukum taaratan uxra taxawal la ci sama kanam di la atte wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fa tabaarakallahu axsanul xaaliqin lii de mooy sunu ndono lii de lañu am mag ñi nag di fi nekk ñuy yàq ñuy defar moo gën a yomb ci ñun ñu defar ba noppi ñu di ko yàq ci seen gannaaw waaw ñi ngi déglu sa ifta yépp sa ay tafasir sa yar sa teggin sa yépp fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin ñoo bokk benn usra di usra at tijaniya sa njabootu maam xalifa njabootu maam Cheikh Alxaaji Malick la ci lu wér njabootu maam Cheikh Alxaaji Malick njabootu maam xalifa lañu ci lu wér jamono bii nag pënd bee wuri waaye lu mën a xew ku yàlla dimbale ba tànnal la na nga xam la nga am te bañ a bokk ci coow li ñun ñi ñépp ay nen lañu woon mag ñee ñu couvé ba ñu jël chaleur mag ñi ba ñu matee cuuj laata ñu ñuy toj tabax nañu suñu kaaf ba noppi ba ñu tojee rek kenn ku ne dugg nga ci kaaf gi fekk nga fa sa liggéey mbir mi nag duñ ci dara lépp mag ñi lañu yal nañu yàlla bokk taxawu yàlla defal la sutura barke bi sallallahu alayhi wasallam